jàmm ci miim réew di bëgg-bëgg union nationale bu commercant yu Sénégal UNACOIS jàpp nag bëgg acteur politique yi def ko seen bëbët ndax tension yi amul benn njëriñ ci miim réew commerçant yi di naan rek ëpp na dafa doy. ndax ñàkk am jàmm ji ci réew mi tey dafa waral ñi nga xam ne ñoom ñoo doon indi seeni alal di ko fi def ñoom ñëpp ña nga jàpp seen jàmm toog di dégloo koo ci ne dama bëgg signé ak yow contrat ca na ma ko doon signé ndax il faut ñu xam ne lépp luy ñëw Sénégal muy lu ñuy jëfandikoo ci wàllu dund li ci gën a bari bitim réew lay jóge te li ñu duppee intégration yu commerçant yi ci dispositif sécurité bi nag nekk loo xamante ne waa ko jàppoo yite woon nañ ko bu baax. sérieusement parler inquiétude bi ñu am defe naa ne ñiy def ñiy jëm ci marché yi ak yàq yi ñu yàq sax amuñu nit ki suñu xasee ba yàq yàqu commencé am marché bi tëj fournisseur bi ma daan lebal man nanguutumaa lebal sama banque taxawuma pour ma fey ti mënumaa liggéey kon population bu ñu bëggee lu ñu lekk fan la ñu jëm am na ñu toog seen kër yi parce am nañu lu ñu lekk am na lu ñu naan mais suñ amatul lu ñu lekk lu ñu ak lu ñu naan lu ñu def dañuy génn ci mbedd yi fekk ñi nga xam ne ñoo ne ci. gën koo waxtaanee ak def seen kéemtulaay kàttan ngir jàmm dem réew nekk ñaari. yoo xamante ne ko Jappo nag def na ko yëfam ba tax ñoo ngi ci woo itam askan wi